Penda Seck Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax euh, madame moro mhm. voilà nga jiite kuréel gi di synergie des organisations de la société civile pour l'élimination de la violence basée sur le genre maanaam kuréel guy xeex euh, lépp luy fitna yi ñuy daal di teg jigéen ñi. Euh, tey ji mhm. laaj bu njëkk moom mooy lan mooy particularité kuréel gi nga jiite ci xeex ngir ñu respecté droit wu jigéen ñi. waaw euh, kuréel googu nga dégg day muy euh, synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre euh, fanweeri organisation ak juróom ñoo ko séq bu société civile bi euh, nga xam ne nag seen particularité moo di ne ku ci nekk nag yaa ngi ak la nga xamante ni si yow moom ngay euh, ca nga jublu waaye nag la boole la ñu linkale ñun kuréel yooyu moo di lépp euh, xeex lépp lu jëm daal ak wax lépp lu nga xamante ni si daal dinañu fexe ba loolu nga xam ne mooy méttal yi ñuy méttal jigéen ñi ak xale yu jigéen yi wala sax forme une violence basée sur le genre it ah jóge fi loolu moom moo ñu foofu moom lañu ñu linkale ko. voilà maay présidentu ëttu jàmm. ëttu bi nga xamante ni moom it. Mm. ci loolu lay dox ci maanaam lépp lu nga xamante ni si euh, jëm na ci. Euh, euh, paix comme on dit paix sécurité ak lépp daal luy xajjatle lu nga xam ne si daal mi ngi dàq lépp lu jëm ci violence euh, faite aux femmes et aux filles violence basée sur le genre. tey jii yéen lan mooy seen position yéen euh, kuréel gi ci li nga xam ne am na ci assemblée nationale affaire Amy Ndiaye Gniby bi nga xam ne ñaari député pur ñoo ko doon dóor euh, ci assemblée nationale déjà naka nga ko gisee ak tamit lan mooy seen position par rapport ak li xew foofu. loolu ñun dañoo daal di jóg sax xam nga ni loolu kenn mënu koon nangu te kenn du ko nangu euh, te euh, xel nanguwu ko dara nanguwu ko droit nanguwu ko euh, aada nanguwu ko ak yelleef dara dara dara dara nanguwu ko jël jóor jëmale ko si jigéen kooku moom déjà boobu rek kooku dañ ko condamné moom loolu moom moom moom moom kenn nanguwu ko moom mais nangu wuñu it surtout nag mu xewe ci fa nga xamante ni sii kat mooy ñaareelu institution wu dëkk bi nga xam ni sax boo fa duggee da nga ko war a respecté da nga cee da nga war a xam ban comportement nga fay yóbbu ndaxte yow peuple bi ngay voix peuple bi maanaam baatu peuple bi eh, baatu euh, askan wi yow moom nga fa nekke moom nga fay yóbbu donc lépp lu nga xamante ni si comportement bu baax la ak conduite bu baax bu nga xamante ni si population bi noonu nga bëgg sax nu mel ko yow loolu nga fa war a yóbbu nga ñëw nag eh, foofu nag mu xewe fa loolu moom naqarlu nañ ko bu baax déploré nañ ko comme ni ñu koy waxee maanaam ni lii wërta am ba pare nag taxaw nag ni nañ ko condamné c'est un acte que nous condamnons kooku moom euh, amul sax euh, demal maa ngi ñëw dañu ni lii wërta am ndaxte violence physique dañ koo tere dañ ko tere jëmale ko ci jigéen wala nga jëmale ko ci euh, ci xale bu jigéen violence basée sur le genre dañ ko tere violence faite aux femmes et aux filles kooku moom dañ ko condamné te dañ ko sanctionné bu baax a baax waaye nag de la même manière gis nga nag noonu ñu ko condamné mm-hmm. noonu it la ñu condamné toute forme de violence bépp xeetu violence bu nga xamante ni si euh, gis nañ ko tama ngay xew foofu rawatina nag mu xew foofu ci assemblée bi parce que lañ fa gis noonu ay forme de violence la ñun bi ñuy xeex pour am la loi sur la parité en 2010 ñii nañ ko teg ci assemblée yi nga xamante ni si élective et ñun bëggoon leadership féminin bi nga xam ne moom la teg euh, bu ñu yeggee ba ci euh, foofu nga xam ne moo di ne euh, kii de décision yi sphère de décision yi nga xam ne egsi nañ fa ci yooyu ma la limal noonu ñu bañ ñu wane fa nag comportement bu nga xamante ni si nag bu bii gis nga nag ni ñu condamné physique bi maanaam dóore bii nga xamante dóor lool loolu moom dara dara moom justifié wu ko nañ ko teg ni amul nag amul dara lu ko justifié mais noonu tamit la ñuy condamné nag saaga ya nga xamante ni si moom la ñu may fii ci assemblée bi xataraayu ya xeex yi ak wax ju ñaaw jeeg wax ju bon ji loolu yëpp dañ ko condamné parce que insulte gis nga insulte ak injure maanaam saaga ak wax ju bon saaga noonu ak yooyu nañuy dafa mel ni comme violence physique violence physique moom dafa dégg moom dafa dendut ak dara dafa nekk lu nga xam ne moom amul nii amul kaayum xaar moom ma ñëw dafa nekk lu nga xamante ni si euh, kiiwul et ça s'est passé au vu et au de tout le monde ñun dañ taxaw ni tem di ko gis ñu jël ko def violence physique ci moom loolu moom kenn du ko kii dañ koy naqarlu te ñu ngi laajte aussi nag que ay sanctions soient prises xam nga loolu il faut nga sanctionner comme ni ko loi bi waxee dañ ko sanctionner donc waru mënuñu ñëw euh, wax ni nañ ko sanctionner ba pare taxaw di ko xool parce que loolu mooy bu ëllëgee mu amaat lii xew moom ci assemblée ak ñu ko di gis on a un appel au président de l'assemblée euh, nationale na ci wax nag loolu moom da ciy wax moom na et puis na def nag na fexe ba nga xamante ni si yi du am foofu ci biir assemblée bi on n'en a pas de droit assemblée bi la deuxième institution du pays nga xamante ni si bu taxawee rek assemblée bu taxawee rek war na na nekk sax écran ci lépp lu nga xam ne mi ngi ci lañu ñu fay gis neexuñu tey neexuñu ëllëg et nous condamnons fermement cela lii di ko violence physique nag jëm ci Ami Njaay moom euh, ñu koy nga xam ni moom dañ koo dóor dóor yi moom ñu ngi koy condamné bu baax a baax et que des sanctions soient prises Euh, ñu gis ni tamit si affaire u Adji Sarr sentiruñ leen trop parce que yéen yéen a ngi xeex euh, fitnaal euh, fitna yi ñu teg jigéen ñi wàllum viol si la bokk lan moo waral du dossier Adji Sarr Sonko sentiruñ seen présence ci mbir mi xam nga ñun organisation société civile yi nga xam ne ñu ngi xeex ci mbirum violence ay professionnel lañu ñu ay comme ni nga ko waxee noonu ñuy def propagande nga xam ne lu yëkkatiku rek ñu daal di tëb riir dañuy xool dañuy seet dañuy càmbar dañuy gis euh, ki nga wax ne si ne lu tax kiw ñu ah kay si la victime se présente ah non parce que ñun victime bi dafay ñëw ci ñun léeg-léeg sa nga gis victime bu nga xamante dañ ko def naka sadu noonu bis bu ne ngeen dégg ñu ñuy xeex ci ay victime yu nga xamante ni victime de xam nga en deux mille euh, en deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt xam nga ñaata victime de violence la ñu am viol quatorze femmes yu nga xamante ni si dañ leen a rey ba pare dañ leen a dañ leen rey violé leen am na ci ñu nga xam ne sax dañ leen a euh, ba pare rey leen dañ am ñoo ñoo xam ne dañ leen a comme ni ma ko waxee dañ leen a rey ba pare sax siq ñoom ñoom xoolama loolu gis nga parmi ci ñooñu am na ca sax ay xale ay ñaari xale yu nga xamante ni si dañ leen a euh, violé nga xam ne ay euh, école kenn ki écolière la woon am ci ku nga xamante ni si xoolal xale fukki at ak ñett entre fukki at ak ñett fukki ak ñeent et vous nous avez Euh, ki nga xamante ne si moom mooy euh, euh, ki xale bi nga tudd léegi kii Adji Sarr mhm. mais dem na ci structure bi nga xamante ni si ne mi ngi bokk ci plateforme bi mu di AGS nga association des juristes sénégalaises des professionnels ñu ñëw dem fa ñu teeru ko tatak ko Euh, laaj ko mu enregistré wu fa ñu laaj ko jël contact am yëpp ñu laaj ko moom parce que bu ñu recevoir cas yu mel na dañ lay daal di wax ne la lañ lay digal moo di ana mbaa am am nga certificat médical parce que boo ko amul dañ lay daal di accompagner pour nga am certificat médical boobu mu ne am na certificat médical ba pare ana bo euh, plainte léegi plainte pour aider nag xam nga il faut nga taxaw appuyer ñu wax la nga appuyer nit ki pour plainte ak wax ko fi nga koy jaarale mu ne am na plainte ba pare a ah, waaw am nga plainte am nga certificat médical ba pare ñu ne ah xam nga victime de viol toujours il faut nga am un accompagnement psychologique waaw wala déet teg viol dafa xaw dafa doy waar mu ne foofu mu joxe fa jiix jaax daal ni moom dina ñëw après euh, dina ñëw dina delsi ñu ni waaw ñu ngeeg ay kontakam ñu woo ko ba tàyyi ñëwul xamuñu fu mu nekk gisuñu ko waa euh, lan ngay wax mm-hmm. plainte na def na loolu yëpp mm-hmm. l'affaire est en justice mais on ngi suivre comme tout le monde jeex na voilà euh, loolu amul ñun luñ cay def lu nga xam ni dañuy jóg na euh, ngeen comprendre. di forcer wala yooyu baax association de euh, ñun ñii nga xam ne ñoo ci nekk nee naa la ay professionnels ñoo ci nekk te nag du ñu jóg rek ñu ni nàngam rek ñu jóg di yuuxoo ka tëba ka dem ka dikk déedéet dañuy xool bu baax a baax ci li ñuy dugg lan la lii lu mu doon te noonu la ñuy liggéeyee. voilà euh, ñu euh, wax madame Penda Seck euh, ci campagne ces euh, jours d'activisme euh, hmm. contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles mu démarré ci vingt cinq novembre wala jeex 10 décembre lan mooy hmm. importance su campagne bile jërëjëf euh, gis nga comme camp mooy fukki fan ak juróom-benn yi nga xamante ni si dañ koy teg euh, di wax ne euh, jëmale ko ci xeex li nga xamante ni si kat ak yëgal bu baax baax li nga xam ni mi ngi jóg ci jëma ci mitital jigéen ak xale bu jigéen ak xale yu jigéen yi parce que dañ koy wax carrément jigéen ak xale yu jigéen yi ak sax enfant violence faite aux femmes et aux violence faite aux femmes également et aux enfants gis nga loolu noonu euh, nga xam ne mi ngi commencé vingt cinq novembre lay commencé vingt cinq novembre mooy journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux mooy euh, journée bi nga xamante ni fii mooy journée internationale bi nga xam ne àdduna bi yëpp Euh, ñoom ñoo koy euh, taxaw di ko célébrer fi ne dem ci àddina bi ñu ngi ci euh, célébrer nañu taxaw nañu ci journée internationale boobu le vingt cinq novembre ñi ci des ñu ngi ci seize jours yi ndax journée la bu nga xamante ni si Nations Unies moo ko waxee c'est une journée internationale. mi ngay jeex nag le 10 décembre. 10 hmm. décembre moom muy la journée des trois humains ak ak yelleef waaye lépp lu jëm aussi nag ci violence yi nga xam ni ci euh, mi ngi moo ci la ñu nekk euh, fukki fan ak juróom-benn yooyu te fukki fan ak juróom-benn yi dafay ñëw dinañ ci dénoncer ak di càmbar euh, violence yi dinañu xool naka la évoluer dinañu xool application loi yi nga xam ni ñu ngi ko ciy def dinañu xool aussi naka la ñu gisee violence ba pare dañ ciy sensibiliser di ci def éveil de conscience di ci def lépp. ko xamante ni si ne warul kat euh, te xam nañu ku nekk xam na ne violence jëmale ko ci jigéen euh, warul euh, waxuma la sax mu nekk lu nga xamante ne yaa ngi salfaañe droit nit ki mais dañ la ni attaque dignité de la personne la ah, da nga ja da nga jàpp nit ki laal ko ci dignitéem ay violence nag du physique donc ah ay xeeti violence la morale psychologique verbale économique sexuelle donc le viol boobu ngay wax noonu. Mm-hmm. ak yooyu yëpp euh, donc ci yooyu lañuy nekk di ci sensibiliser di ci kii gis nga sunu campagne euh, kii bii euh, ci ces jours yi dañu ni na na dakk mbaamu dal maanaam nañu ko bàyyi nag nañu ko bàyyi wala rek loi bi tombé ci yow mu am nag tax nag lu ñu metti nag ci assemblée boobu ngay wax noonu mm-hmm. ndaxte ci ces yi ci la ñu gis nag ñu jë góor jë tëb jàpp jigéen. Mm-hmm. dóor ko ci sunu kanam ñun ñëpp. Mm-hmm. ñu gis ko. Mm-hmm. sunu campagne bi nga xam ne tamit nag euh, moment bi moo dina ñu ngi wax la masculinité positive xanaa dégg nga masculinité positive barki démb Njaay rek la ci euh, état Sénégal abrité kii bi avec le président de la République ñoom ñëpp ñu ne ah góor ñi dañuy ànd ak ñun fi mu ne ñuy xeex nag loolu nag ba nga xamante ni si kat daañu bàyyi nag euh, lu jëm violence waaye maa ngi lay wax nag leen xam nga boo nee violent dañuy defe ni rek góor mooy tëb rek def ko jigéen jigéen nit dina tëb def ko góor waaye dañu ne gis nga li ko góor di tëb di ko def jigéen boo koy xool boo koy càmbar moo ëpp foofu la ko jigéen di def la jigéen di tëb di ko def góor jigéen ji nga xam ne jigéen ñi nga xam ne aussi victime de violence lañu ñoo ëpp foofu góor victime de violence néewu ñu góor du victime de violence violence moo amul sens ak ci koo ko jëmale nag nag loolu la ñuy xeex bu baax a baax a baax euh, tey wax nag ni dañ ko bàyyi la xew assemblée naqariñu lool ci fi nga xam ni moom la dal ak fi nga xam ne si fa la ko dale ak fi nga xamante ne si moment bi nga xam ni tamit nag moom la ko dal dara justifié wul violence dara nag waaye de la même manière na noonu la ñu condamné it nag la nga xam ne ñu ngi ko fay gis nag ci assemblée googu neexuñu it et nous le déplorons te ñu ngi koy wax loolu dañ koy condamné mu di saaga yi ak wax ju ñaaw ji ak wax ju bon ji jëmale ko systémique de quelque bord que ce soit nag que jóge ci jigéen wala que mu jóge nag ci góor ñun de ñuy xeex pour am la loi sur la parité ba nga xamante ni si am nañu euh, ay nag jigéen ñu tabarfakal la ñu xaw a yem ak góor ñi xaw a témboo fële ci assemblée ba bien que témboo wuñu ba léegi waaye euh, am nañ fa lu nga xamante ni si nag ñu bëri la macha allah dañu ne dañu am comportement loolu lañ leen di xaar comportement député la voix du peuple lañ fay porter nañu am comportement boobu saaga yi ak wax ju ñaaw ji ak euh, injure yi maanaam injure cri euh, insulte kooku nag ñu ngi koy condamné te di wax ne sante wuñ leen ko benn yoon te bu ñu sañoon ñoom duñ ko fa def ñoom jigéen ñi surtout de la même manière nag la ñu condamné violence physique violence physique nag dafa dafa euh, kiiwul ak dafa kiiwul ak dara dafa dendewul ak dara moom ndax jël nit dóor nii ñëpp di gis a ah loolu non kooku nag on condamne et on demande ay sanctions nañ ko jël te ñu ngi ciy appeler le président de l' réglement intérieur de foofu noonu euh, nañ koy xool nañ koy xool te mu koy rappeler c' est pas normal et ñu ngi koy ra ñoom ñu ñu ngi ñu ngi koy def appel ci moom de la même manière nag violence physique morale psychologique violence moom dañu ko d' accord que ça soit dans la sphère publique dans la sphère privée. voilà madame Penda Seck Diouf Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jërëjëf euh, euh, Moreau ndax euh, li ma wax noonu. <laughs> noonu <laughs> noonu la may fàttali ne yaa yaa jiite kuréel gi di mm. synergie mm. des organisations de la société civile pour l'élimination de la violence basée sur le genre ak tamit ëttu jàmm yow yaa ko daal di jiite ñu la si remercier kon bu baax ah. <laughs> waxtaan bi am solo nuyu bu baax di mm. remercier bu baax di remercier ñu lay déglu waaye tamit nag di nuyu ak di remercier bu baax. organisation yooyu nga xam ni nuit te jour fu ñu toll ñu ngi di lutter ku ci nekk euh, ci euh, violence basée sur le genre yàlla na fi euh, li ñuy wax daal moo di ne ñaanuñu si daf fi war a jóge mm-hmm. moo di violence yu nga xamante ni si ñu ngi jëm di ko jëmale ci jigéen ñi a xale yu jigéen ñi te naan nag ah bu dakkul nag dina dal ndax dañu demander nag des sanctions et que les lois s'appliquent